maaleykum salaam suñu Fall. waaw da nga waxoon ni da ngay leeral mais sa leeral yi dese naa leer euh, ndax euh, boo jëlee société bi di Avanti ak Afrique nga xam ni euh, Afrique Inco nga xam ni benn nit moo ko moom mi nga xam ni daanaka ceeb bi lim leen ci jaay ñu ne jege na dix huit milliards ci ni ngeen ko bindee nga ni itam gendarmerie ak armée dem nañ constaté stock yi ku ku stocké. dix-huit milliards ci CFA ci euh, mbirum ceeb fan la ko stocké est-ce mën nañ xam bërëb ndax yow dem nga ca ba seetlu nii demal ci plateforme monsieur Fong da ngay demal ci plateforme fële euh, fu ñu jëlee ceeb bi ceeb bu ku fa joxe avanti moo joxe ceeb fu nekk nii fu nekk ceeb bu dugg Sénégal les huit mille tonnes et poussière fa la jógee donc ñun waxuñu waxu caaxaan waxu dëgg la ñuy wax donc loolu moo am boo buggee lu leer da nga fay dem ngir yàlla yonte bi nga seet lu ñuy wax amul dara luñ ciy nëbb amul dara luñ ci làq. léegi ma ma comme rek. bismillah ci question ñu ko milliards xarit la mu ak itam pourquoi. non parce que da ngay da ngay ci ko fenn. non a def la. da du sama xarit